Soundiata Keita ay sa maam le roi d'Afrique Soundiata Keita mooy sa maam ku la lekk dee ku la naan maan ku la rëy jëndum réew wàcc ba daan naa la wóorul ku la demee féete kaw bi salaamaaleykum ñi saxoo di ñu seetaan fii nga xamante ni mooy CIK TV Sénégal. mu doon seen chaîne boo xamante ni boo bëggee xam lu Cheikh Ibrahima Keita di muy liggéey boo bëggee xam sama ñaari gaay lu ñuy def ci lan lañ ko tënk. ci baatu tontu lañ ko tënk lépp da koy bëgg a ñëw seen ko fii nga xamante ni mooy CKI TV Sénégal mbokk yi ñu leen di siyaar bu baax di leen delloo seen wàccuwaay gëjoon nañ fi nag gëjoon nañ fi lool dañoo nekkoon xam nga rek wàccaay lañ nekkoon yàlla def nag wàccaay bi dañ na ci vacances daal yéen a ma gën a xam ma fekkoog suma xarit sama grand frère sama lépp mooy Ahmed Fall Ahmed ñu ngi lay siyaar bu baax bàyyi nga ci jàmm. waaw ñu ngi lay siyaar a wér a laay ñun kontaan rek comme danoo demoon tuuti def benn vacance bu ndaw rek defoon ben vacance bu ndaw ndaw ndaw parce que dañu paye suñu stade yi defar suñu stade suñu attaquant def ko ci rond point bi waron def ben noppalu mo tax rek gi ngeen gën ñoo gis mais euh, ñu ngi fi bu baaxa baax di leen safo chaque jour comme d'habitude rek ñu ngi leen di bëggé di leen safo comme ñun ko daan té comme niñ ko waxé rek ndaxte Cheikh Ibrahima Kade dafa nek ko xamanteni c'est le marabout international dafa nek ko xamanteni dafa nekk koo xamante ni macha allah li muy li muy liggéey macha allah kenn du ko nattable te ku dal près de 17 million nga def ko ci eseti bu toll ni nii eseti Soundiata Ba Soundiata Keita bu toll nii nga ne ko chef lii pour lan la mooy la sama maam laa koy dundalee di ko defalee sama maam da képp koo xamante ni nekkoon nga ci Sénégal nga xamante ni di xeex diineen di xeexal lislaam di xeexal borom deret bu ñuul kooku la ñuy nekkal tey jii nga xamante ko mooy Cheikh Ibrahima Keita bu jëlé ay milliards ay millions yu bare bare bare bare bare ñoo def ko ki nga xamanteni moy mamam yaakar na ni du ñëlu lu bulet ndax ya naa def ci mam nekkul tay rek la ko def ci mam SCT bi nak gaay ñi ngi naan li ay fetish la ñi naan xam rek gaay sen waxu bop lañ yor waaye Cheikh ibrahim Kay du jubluwu ci ngir len taral dekk moo mu jublu ci ak bëgg bi mu bëgg mam ak fonk bi mu fonk mam lool mo waral li Amet gaay yi nañ ci lu ne wax ju nek dégg nañ ko ci lool noko gisee Amet laay comme d'habitude rek gars yi ñoom ku def ñu wax comme ku def ñu wax leen di bàyyi ñuy wax rek parce que ñun lu ñuy def nii defuñu ko pour ngir sël defuñu ko pour dara dañu kaa def ndax sargal suñu maam Soundiata Keita le roi Mandeng moo ñu tax a jóg eh, Cheikh Ibrahima Keita dafa gis loo xam ni amul si Afrique loo xam ni depuis ba ñu commencé def ay estati mosoo gis kenn ñu def esetu ay Lajoor ay Kumba Ndoofeen ñu bëri te am na fi ay sët yi ko war a mën a defal loolu mais defaluñu ko jël boppam jël maamam bindal defal ko esetu bu mag bu mag a mag fii si rond bi gars yi wax nag mënoo leen bàyyi mënoo leen tee ñu wax parce que sénégalais moo bindee noonu ñun senegal ñoo bindee noonu bu ñu defee day am ñi def ñii di yàq yàqat yi ñoo bëri Aliou yàqat yi danoo bëri moo tax ñun danoo def rek ndax suñu maam ndax sargal suñu maam ndax suñu maam moo doon roi d'Afrique di maamu Cheikh Ibrahima Keita le roi Mandeng loolu kese moo ñu tax a defar esati mais defuñu ko ndax ngistal wala dara laay ba pare tamit taxi laay temps yi gëj nañoo génn dégg nañ lépp dégg nañ lu ne ci YouTube bi ci suñu der dégg nañ lépp lu ne ci sunu der gii mais lay naa ba may tuuti nga am leen loo si wax ndax ndeyu seetaan YouTube yaa ngi dégg ñun nekkuñu senegal pour ay gaaruwaale walla ay wax naka noonu ndax ñun soxlawuñ ko. ñu ngi dégg nag ñuy wax suñu tuur sëriñ di wax cheikh ibrahima kayta cheikh ibrahima kayta yow laa bëgg nga faram pàcceel ma si loolu tuuti laay waaw amed loolu yaakaar naa bo ma bo ma ko ma joxe micro dama ciy sawar wax da sama maam daf may faral di wax nee na ma nit njëriñ dong rek lañ koy doy te cheikh ibrahima kayta dafa da amal njëriñu askan bi amal njëriñu gox bi muy yeew fi nga xamante ne mooy liberté six cheikh ibrahima kayta dafa amal njëriñ ba nga xamante ni képp koo xamante ni da nga koy gis muy aajo kon bu demee ba jël monument plus de 17 millions ak lu teg def ko monument tuddee ko maamam kon yaakaar naa ne khaman Sénégal ñëpp ko xamal bis boobu bis bu rëy la waaye ñi nekk ci ginnaaw Cuuju Fuuta di wax loolu amul benn wax amul njëriñ yow mi may déglu baa nga may seetaan yow laay waxal yow mi sàcc xaru xaru saawaay bërki Dembo Ndiaye ñeent ñaari xar yi nga sàcc loolu ñun duñ ci wax ñun dañu wax koo xamante ni sàcc nga Saaliw dama ne la daa ku sàcc booy boobu tudd suñu la

mu ne ko damaa bëgg nga yebal sa gaay ñu ñëw ku dee ku ne da ngay wax te yàlla rek tax mu ne Cheikh Ibrahima Keita damaa bëgg sa gaay ñëw ñun ñu ñëw fi indi fa sunu caméra Cheikh bi Ibrahima Keita jox ñu ab enveloppe déggoo leen ma de Cheikh Ibrahima Keita enveloppe la ñu jox bu baax a baax a baax xaalis bu bëri la ci def ne ma gannaaw ba daam ñëw nañ gis nañu marché d'or sukkal ma ña pour ma ñaanal ko sàkku ndimbal kon du may def ni daam du ma gën a gore du ma du def dara dama ngeen joxal ma ko enveloppe bi waaye bañ demee fee fa jeex Cheikh Ibrahima Keita amul sa temps amul sa jot yow dañ laa dàqoon ndax def ñaari xari jàmbur nga sàccoon ñu dàq la xamoo looy wax saa waaye moo tax nga ne ko xaama defal la vidéo pour am buzz. kanam sunu kanam te loolu te loolu yëpp ñi ngeen moom loolu yëpp ñi ngeen moom ndax yaa ngi naan sëriñ bi nga nekk day topp nit ba mu sës nga ñëw ñëpp jour bañ lay woo téléphone voilà te jour bañ lay woo téléphone audio yi mi si ñun ba tey da ngay dal jam ñu ñoo bokku 19 est ce que comprendre man nee naa suba dama lay xey gis la bu Cheikh Ibrahima kayta bu aajee ma joxe suma bokk dama koy def Cheikh Ibrahima kayta bu ko la dagg suñu yaram jox ko dañ koy def te yalla rek tax ndax len dafa am nit ki ngay nekkal dang koy gëm waye waaye cuuju foota bi nga nekkal gëmoko bëggoko wolu woko ba pare di sacc ñaari xaram ñu dakk la yow li nga def 19 mi fa di weng weng yow wa 19 bëggu ñu la gëmu ñu la nañu wax ni deug Cheikh Ibrahima kayta dafa ñew massa jor am téléphone bi mu doon lijjanti ñun ñun sax maag am na ñoo ko fa yóbbu. mu ñëw wër ñu ne seex bi ñaanal ma patati patata chef bi dem lijjanti téléphone bi mu lijjanti ñëw mu tourné waat ci ginnaawam ne ko chef bi dama am ay tat yi ma def bëgg naa nga teew bëgg naa nga ñaanal ma wax a wax a wax a su ko ci tànk Cheikh Ibrahima Keita Cheikh Ibrahima Keita ñaanal la <coughs> Cheikh Ibrahima Keita ne ma gannaaw ba demee na ñëpp dem leen moo gën a rafet ma ne ko chef bi man du dem ndaxte gannaaw ba moo ak ñoo far ñun ak ñoom mooy loolu suñuy ennemi lañ. du ma dem fa cheikh bi ne leen dem leen adduna amul solo dem leen dafa sàkku ndimbal moo tax ñun ñu ñëw sa cant waaye bu noonu ñun ak ñun ak ñu rek dañu ñëw sa cant ma bàyyi ak kàddu gi lépp dina leer li ngeen xamoon dafa lëndëm loolu yëpp dina leer ci moom te ñoo boo ko 19 nag tey la tey waaye suba la nettali bi <laughs> ah vraiment wax di dégg nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ah, waaju naan daam man nawloowu ko man nit dama lay nawlo mais man nit kooku nawlo ma ñaari yo da ngay wax ñaari yo da ngay ni muy wax ay vidéo di tuddu sama tour yaa ngi dégg voilà voilà xam nga ñun ñun ñun ñun ñun nekk ñu nga xam ni pour ay tontu ñun soxlawuñ tun ay tontu soxlawuñ ay tontu yaa ngi dégg ñun nawlawuñ la man wuma la bok parce que dama la raw fépp ba may am jabar amoo jabar ba tey amoo jabar aw maag yow affaire man nawlawuma la man yaay ñëw sama kër waaye man ñëwuma sa kër yaa ngi dégg man ba may tedd kooku ngay wax mooy sa sëriñ boobu xaw ma yaa ngi dégg ba may tedd ki ngay wax naan mooy sa sëriñ xaw ma ko man dama tedd ba yow moom di wax yow daam yow xam nga ni man damaa tedd ba ba ba tey jii nii dama tedd laaj ma waa 19 yaa ngi dégg li ngay wax nii parce que da bëgg nit ñi xam ni yow dàq nañ la xamoon nooy def nga ni boo xaaral ma dem créer benn yàq der pour njëlaat ma yow ki nga nekk yow gëmoo ko yow ki nga nekk gëmoo ko c'est que doon wax bu doon sax ku mu nekkal gëm na ko bu doon ku mu nekkal sax gëm na ko du sàcc ay xaram yow ki nga nekk gëmoo ko. sa vidéo yi barki Demba Ndiaye mu ngi nii sa sa sa sa kii sa audio barki Demba Ndiaye mu ngi nii voilà donc merci barki alxuraanul karim billaahi wallaahi bu fekkee waxoo ko nga jël kaamil nga waat ko la mani mani bu fekkee lool wax ko da jël kaamil toog si digg dugg si basang boobu mu waat ndax loolu wax ko ñun soxlawuñ ko moom moo ñu fekk marché Dior ñu defar téléphone ànd ak Cheikh Ibrahima Kayta mu ñëw ni sëñ bi dama laa bëgg dama laa dama lay tiitaroo barke alxuraan pour yow sa kooku noonu nga tegoon kooku noonu ma nekkal pour moom moom mooy yàlla barke alxuraan yaa ko wax te loolu nangoo loolu sañoo jël kaamil waat ko te ñun loolu sañoon kaa waat yow ki nga nekkal gëmoo ko gëmoo ko ndax man mënumaa conseillé nekk si nekk ak nit te gëmuma ko man damaa nekkoon fi ma nekkoon dama xam ni fi mu nekk dëgg amu fa moo tax ma jóge fa ñoom ñi fay nekk yëpp di mbelelali maa ngi fa jiitu fop ana Baye Sidi ana Aliou di dëgg la ñuy dox moo tax gisoo leen gisatoo leen foofu yaa ngi dëgg ñooñu dëgg moo leen tax a jóg ba ñu demee ba xam ni dëgg amatu fa ak ñeneen ñu fa jaar ana ñu papa ñoom papa ñoom ñëpp fi leen jaar fa lañ jaar ana ñoom bétuwaar ba ñu demee ba xam ni dëgg amatu fa dañoo dem seen yoon voilà ñoo xam ni seytaane ak bëgg lu ñu am moo leen fa bàyyi ñun nag ay góor yàlla dañoo am jabar am ay doom kon am na yoo xam ne dañ koy jomb suñ suñuy njaboot du ñu bëgg ñuy ñuy lekk voilà du ñu nekk ci Sénégal am ay doom am ay ay ay ay jabar yor jabar yor ay doom di lekk riba duñu ko def du ma def loolu yaa ngi dégg ba ma demee ba xam ni lii dëgg nekku fi damaa dem sama yoon ba ma ñëwee damaa ñëw ci koo xam ni mooy boroom dëgg wax nañ lu ne yàq der bu ne yaa ngi dégg man lijjantiwuma leen man lijjantiwuma leen man awma seen temps dégg nañ lépp dégg naa wax ji yépp dégg naa lépp di leen seetaan nag di leen bàyyi ci biir xam ni matoo leen nit day mat ndax man munumaa man du ma du ma ni damaa gëm damaa gëm Cheikh Ibrahima Keita ba mu yor ay xaram ma koy sàcc di ko jaay. ba pare dem si seen jóge si Cheikh Ibrahima ñëw si Cheikh Ibrahima ne ko ki ma nekkal pour moom. pour moom moo pour moom yàlla la barke alxuraan moo wax loolu billaahi vidéo yaa ngi fi combat bi maa yéen maa dinaa xeex yéen si voilà te du xam ni moom laay xeexal ah audio yi ñu am ñun fa leen ko jëlee ngeen tegoon fa leen ko jëlee meruma nag dama leen di wax loo xam ni looloo fi am ñun daal boo juumee bu tudd suñu tur ci YouTube. voilà wax la lu ñu la a wax. àdduna daal noonu kase la ñun dañoo am ay dañoo am ñoo xamante dañoo nekk suñu ginnaaw am suñu staff boppam Cheikh Ibrahima Kate dafa am staff Saliou Ablaye Mouhamed dañoo am ay staff yoo xamante ni duñu ay tontu waaye gannaaw bi mënuñoo bokk nga ne da nekk si benn koñ toog ci YouTube tudd suñu kër ñëpp bàyyi la ñun ñu xettali la bu la romee di la siyaar di la bëggee di la wax ak yow. nga ñoo toog tey jii nga xamante ni mooy ngay ñuy wax yenn dañ la koy sabañ te bu ñu jàkkaarloo boobaa lay gën a neex sax ndax am na yoo xamante ni mooy loolu ki nga nekk gëmoo ko wóoloo ko bëggoo yow tàppen nga gëmoo sa bopp ragal bu mag nga tàppen nga ñu ne affaire yi nag xam ndax méttiwuñu ndax yow gëmoo sa bopp deuxièmement ba mooy yow ki nga nekkal fonk ko ñaarab la yow kenn nawloowul la ci dara kenn moo la nawloowul ci dara troisième li mu métti mooy ñoom bu ñuy wax xoolal moom bu bu billaahi wallaahi wa am na fu ñuy toll ñoom buñ moom waa kër ga waa kër gi si boppam bu ñuy wax buñ séenee daam dañ ñoom ñëpp ay parce que xam na ñi wokk du wokkatu dëgg te barki alxuraanul karim waaw moom lay yàq derab barki alxuraanul karim tey nga tey nga ñëw bëgg ñu jël la nga def li ngay def sa njombe bëgg ñu jël la nga ni noo bon xaaral ma dem yàq turu Ahmed wala ma dem làq turu Ablaye mu ñoo ñoo yàq ndox ñun yàlla teral nañu boo pare yàlla dimbali ñëw ñu boo pare yaa ngi dégg waaj yow xam nga ni ki ma doon ki ma nekk nekkaloon bu fa nekkul du nit du fa ne man du ma wax kenn ni gis naa yàlla te gisuma yàlla man duma wax kenn gis naa yàlla te gisuma yàlla man dëgg moo ma tax a jóg ba ma demee ba xam ni fii dëgg amu fi damaa dem sama yoon ndax samay doom bëgguma ñu lekk riba est-ce que nga saaliw saa dañu waxante dëgg waay nit day nit day am jom am fulla voilà kon saaliw kontaan nañ torop bëgg nañ torop ñu wax suñu statut parce que topp si wax ñoo xam ni amuñu palte amuñu palte tekk ñu dara si dëkk bi xamuñu leen amuñu benn sens nekk Sénégal di sos mënuñu bàyyiwuñu bu ma toppee di waxtaan sax di wax sax si ñoom damay gën a mel ni ñoom sax booy dañu wax si statut bi waaye waaw statut bi la ñuy wax rek ne na yaakaar naa ne saa lu mat 17 million nga def ko ci statut yaakaar naa duñ ne bëlët sama maam daf ma wax ne nee ma nit njëriñ dong lañ koy dee estati bi mooy lan la ngeen di gis boo xelal ñëpp wii si la te njëriñ googu mooy nit kenn du ko maafe kenn du ko suppukaani te kenn du ko yaasa njëriñ bi waa waa Sénégal di Cheikh Ibrahima Keita mooy muy def nit ñi di gis preuve njëriñ gi mooy bu xewle ñëpp wuyu si ko njëriñ gi mooy mooy daal dafa dëkk ci dëkkam dëkk ci goxam dëkk Liberté 6 bi defar waa Liberté 6 di ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ñëpp bëgg ko nawloo ko ndax yaakaar naa kon fu ñu taxawlee ba ci xale yi ndaw yi damay rus sax ana Cheikh Ibrahima Keita ana Cheikh Ibrahima Keita Cheikh Ibrahima boo ñëwee Liberté 6 mi ngi toog ak maire di waxtaan ak ñoom mi ngi toog ak paa yi di waxtaan ak ñoom mi ngi toog jeunesse bi nga xamante ni tey ji seen ave mi ngi toog door dugg seen buntu àdduna loolu yëpp Cheikh Ibrahima Keita rek ay sacrifice la yoo xamante ni mu ngi koy def te yàlla rek tax moom laa gis la sëriñ boo xam day wàcc terrain bi di sol dàllam di dugg oto di waxtaan ak ndaw ñi di kaf ak ndaw ñi te bu la wanee ginnaaw ba ne ki mooy sëtu Soundiata Keita mooy xalifa di Soundiata Keita da nga naan déet li loolu amul ngir wàcc bi mu wàcc boppam ngir gëm gi mu gëm boppam ñun nag ay taalibe lañu dara boo ñëwee taxaw wax suñu sëriñ yenn ñu ne am nañu sañ-sañu wax ak yow lu ñu neex gannaaw ba wax ji moom caméra buy daw la nii rek waaye bis bu ñu gisantee jëxërët di nga tal leneen lu dul caméra ndaxte boobaa yow amoo fi lu taxaw ñu ñun 19 lañ juddoo <coughs> fa lañ màggee lu ñu am 19 a tax waaye ñu ne yow ci biir bët mooy def nga toxo rek mooy am na lu jug sa kaw yow ñëpp xam nañ la waaye gis na bëgguñu la nawloowuñu la yow tey ji boo ñëwoon Cheikh Ibrahima Keita këram dañ lay <coughs> dañuy dala sa xel mais la xaalis bu bëri la am temps te kenn du la filmé te yaa fi bëggoon a ñëw ñu téye bal bi ne ba léegi yow sa audio yaa ngi fi ñun bu ñu waxu ci war wax ci ñu la xamal moo ëpp ñu xamal dara yoo xamaloo ñu dara <coughs> yo tax na waa 19 kenn kenn gis na kenn waa 19 kenn kenn bëggatu ko bu ñu gisee di ñoom ñu ne tekki di wax temps dañoo nekkoon ci affaire monument bi yàlla def ñu am ndam moo tax ñu toogoon suñu ruq moo tax ñu baalee ngeen di def ay vidéo di mbel mbel instant noppaliku nañ ba ñëw <coughs> def nañ suñu feet bu neex macha allah. ñun taw lañ leen lool. slogan bu 17 millions samp ko leneen de témoignage yi nekk ñu a ngi waaw euh, Gambia ba ñu faj ko Saliou Saliou loolu moo fi waxee damay kontaan ndax faj mi wér moom Cheikh Ibrahima Kassé ko mën faj nit xool nit rek mu wér Cheikh Ibrahima Kassé ko mën gis naa ay vidéo bu ñu demee ba mënatul nañ toppi seen loolu noonu. waa nga def ko marché. wala daay wala ñun amuñu lu ñuy wax ak nit amuñu maa ngi gis benn vidéo maa ngi gis sama sama bopp ci biir vidéo bi. man foofu ñu may seetaan pour seen pour seen marchandise jóg. voilà. non li yàgg na yàgg na yàgg na parce que nga boo demee ba amatoo teg. yàlla day yàlla yàlla gëmul nelawul yàlla gëmul nelawul nit boo ko toroxee rek yàlla toroxal la. te yàgg nañ toroxaay ay nit yàgg nañu dàq ay nit ay guddi sama kanam barki alxuraanu karim ay meer di leen traité lu garaw tey meer bi mu ngi si Touba dégg nam bu baax ak yeneen i meer ak yeneen voilà ñëw na fii Cheikh Ibrahima ñëw na si man wala demee billaahi te laaju ko dërëm Cheikh Ibrahima Keita mooy nit koo xam ni moom xeexul xuloowul xeexluwul xuloowul ñun li ñuy wax dañ ko xam man dama li dama ko xam parce que man dama nekk ci dama nekk ci ay cas yu bëre xam lu bëre noppi si yaa ngi dégg man nit munuma xoqatal wala may ma xol ben beut ragal ndax bindaluñu ma non jàngeewul ma non yaraluñu ma non yaay deg dégg sayu deug moy ñeuk deug moy muju lu ay 27 euh teg nak lal ay fa nakoy dindi waaw saaliw waaw ko nuñ ko yag di defé rek àdduna mi ngi ni bo jumee ba wax ñu waxu dof ñu jum ba tontu la tontu dof rek àdduna mom lool kassa la te Cheikh Ibrahima Keita yaakaar naa liggéeyam la am te tamit bi ñu gëna gis yi seen yeen yeen seen youtube yu bare bare dara cheikh bi xel mee ko wër cameraman cheikh ibrahima keita la ninki nanka de cheikh ibrahim keita la ko lañ nane salim ñu ko li ngay filmer fenn la keur cheikh ibrahima keita nga koy defee li ngay monter fenn la vidéo bi fenn la du ñaata du ñett kooku lañ nane cheikh mama yalla jammam yag diko ñaanal yalla suba ci lu muy dugg yalla ko suñu borom defal ndam dafa gona bi mag dox di ram bay juk cat lañ koy ñaanal ak musiba ak bala doomu ñay mom yaakar na kenn duko ñaanal guddu fan wër lañ koy ñaanal ak wër la te lepp lo sentu sa bi yaak mama yalla suñu borom def ay ndam ndam def ci barkel lu bare bare bare bare ñu ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp ja ngeen jëf sama gaay di bëggee ñëpp nak di ya. gëyé sa wa kër di bëggee sama ñom tonton sama ñom bàjjan waaw ah, di gëreem sama grand frère yi nek Pikine nyom Pafal nyom Bira nyom ibu fal sama rakk docteur di gërëm tamit sama jabar mo euh, Fatou fatu Fatou fatu sek ci am bokku waaw di gërëm ñëpp nak ne ñu ngi leen di ñu ngi leen di defa ñu ngi leen di xaar di leen defaat beneen vidéo bi waaj a ci kanam incha allah ñu def kon bye bye taalibe Cheikh Ibrahima Keita yi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo dëggu gëm Cheikh a Keita bëgg ko te muy dëgg wax dëgg yàlla macha allah rafetali na waaw lii yëpp boo leen ko gisee nag mbokki àdduna mbokki Sénégal ay leeral la waaw liñ naan euh, leeral da ciy baax leeral da ciy baax te yow mënuñu dajeeg yow ci bërëb nga topp suñu sëriñ topp pour gis suñu sëriñ pour nuyu suñu sëriñ ñetti yoon koñ nga ko fu ne pour nuyu ko wax dëgg yàlla ñu nangul la loolu nga ne suñu sëriñ dama am tey am ay cant doo loo ma dimbalee rek baax na cheikh bi naa la amul problème dinaa fa ñoo am nañu la indil incha allah rabbi noonu la demee ñu dem fa wax dëgg yàlla nga woote ci téléphone bi wax lu ne yàq sa deru sëriñ lu ne tey nga toog feene bëgg lu neex ñële di fen di wax lu dul dëgg donc mbokk boo lëgee boo xamul da ngay noppi jaajëf mbokki àdduna jërëjëf mbokki senegal jërëjëf mbokki CIK TV. Soundiata Keita ay sa maam le roi d'Afrique Soundiata Keita mooy sa maam ku la lekk dee ku la naan màndi ku la réew jëndum réew wàcc ma daan naa